waaw man moom wi Mamadou Sakhir loolu laa tudd dëkk Thiès juddoo Thiès yaroo Thiès. non jàngat bi ma ciy am du sori mooy jàngat bi sénégalais yépp am parce que lii bañ ko waree def dafa yàgg Olof Njaay nag dafa wax ni kuy dem ba xamatoo foo jëm da ngay da ngay dëpp décision bi tey ki ko jël dafa dëpp parce que tout ce qu'il entrepris muy xalifa Sall muy Karim tout ça ce sont des échecs et ce sont les populations aujourd'hui qui ont réclamé sax xam nga li gënoon am solo mooy mu bett ñëpp def ko avant ñu koy wax mais sëriñ si wax nañu ah autorité sénégalaise yi ku ci nekk wax nga mu dëgër mais moom li mu dëgër nag tey moom moo ci dellu gannaaw donc loolu amuñu ci benn kii boo xam ne bi dañ ko wax lu may di sant yàlla mi nga xam ni et loxoom euh, lépp ci loxoom lay jaar libération Khalifa Sall muy grâce muy amnistie amnistie sax la waroon a am parce que liñ koy wax yëpp defu ci dara te population sénégalaise yëpp aussi wax nañ ko ñetti at nit ñi topp ci di wax tey buñ ko defee safewul waaye nag dañ koy sant yàlla parce que euh, il va retrouver sa famille il va retrouver sa maman qui est mais loolu yëpp nag mbiri suñu boroom la moo ko jaarale foofu nañ ko xam kii kii ko mais nag aujourd'hui ce qui se passe na gërëm ñëpp gërëm euh, sëñ Touba parce que moo delloo si xol yi bërki démb ba nit ñi nga xam ne ñii sax daawuñu woon wax taxaw nañu tey wax sénégalais yëpp dégg leen waaw lii nga xam ni moom la def ci xalifa Sall noonu la war a def ci Ablaye Wade waaw nekkul yóbbu ko ba këram rek mais na bàyyi Karim loolu moo ju moom mooy li nga xam ni sénégalais yëpp wax nañ ko. donc euh, libération bi ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di xam ni fii Sénégal li fi mag ñi ñaan jàmm rek a fi am keneen ku fi indi leneen tam da ngay dem ba ci yàgg rek nga dëpp kon boog ñu ngi sant yàlla comme e eh, borom réew mi dem na ba dëpp ba def lii e ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant waaye nag am na yeneen yoo xam ni war na koo def parce que occasion bii ñu génn ci masaalikal vraiment occasion la pour moom pour que au moins ah mu repositionné waat par rapport au sénégalais parce que sénégalais yi sonn nañ waaw te moom rek moo ci gën mën a génne Séné sénégalais yi donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di xam ne lii rafetlu nañ ko wasalaam. waaw ah, sama vélo karama koo waaw lu jàngat ma am mooy sant yàlla rek ndax Khalifa Sall yàgg naa ko ñaan Khalifa eh, Macky Sall pour mu libéré ko waaw mais. waaw pour mu ñibbi yàgg naa ko ñaan pour mu libéré ko teel a teel a ko yàlla dogal après ouverture Massalikul Jinaan juma juma ja xëy na imaam bi eh, su mu tegaa wax na Abdoulaye Wade wax nañ xëy na bi premier na deuxième pas am waaw lu jot yomb yàgg na ay at sëriñ yi bëri wax nañ mais Macky décidé wu loolu ñu bëri wax nañ bon politique la ñaan du politique mu yàlla moo yàlla moo xam daal jël na wa jël yàlla moo xam moo yomb tey géej bi tey bàyyi naa ko sant yàlla rek ana yàlla Iran da yàlla ko wax mu ne ko léegi nga jënd si neexee yàlla lii naatu laa du jot yomb mais alhamdulilah te tey jot na yàlla ba yàlla def mu bàyyi naa ko sant yàlla rek wala mën a wax rek mu nam ñeneen ñeneen des na ñeneen mu nam ñeneen sa mu mu ba mu ñëw ñu ñëw am na ko jënd moo ko tuuloo xam nga ko am na xam nga dafa dafa génn si dëkk bi mu ngi tu tu euh, bitim réew mu nam ñu bàyyi ko mu ñëw mu ne tamit keneen keneen keneen bon am na un journaliste aussi je ne sais pas comment il s'appelle mu bàyyi ko loolu lañ Sénégal benn lañu rek Sénégal ñëpp benn lañu ñuy xuloo ay ay kiiro kii amul baaxu si rek moom politique mënta ñàkk politique moom fo balaa nga am dara fa ñu sonnal la ma ñu bëri Macky Sall moom dafa am changé rek moom tamit amoon na fi problème si Macky ak xëy euh, ak Abdoulaye Wade ah, booy bi dem waa seen bi tu bi dem Touba gars ko réglé va et vient muy à la fin muy da nga ko mujj a dàq waaw ma Abdoulaye aussi Abdoulaye aussi même chose jàpp nañu ko fii ñu bëree bëri ñoom ñoom ba dëgg moom noonu la mais nit boo koy jàpp na nga ko jàpp si dëgg waaw nga jàpp ko loo xam ne lii mu loo xam ne lii moom moo ko def nga jàpp ko mais bu dee politique la waroo ko jàpp amoo ah, amoo droit jàpp ko waaw waaw sant yàlla rek sant yàlla mu ngi ñëw am na ne ñëpp mu ngi ñëwaat am na ñëpp ñoo bokk seen ñoo bokk seen réew mi Sénégal ñoo ko bokk kenn mënu ko xaar ñaar xam na mu ngi mu ngi mu waaw mu ngi dellu si si ci mu jël dafa yoon décision boo mu ñëwaat encore incha allah sant mu koy xaar ñaar Macky Sall Khalifa parce que parce que bon politique boo boole na politique politique mais lii moom man mënu ma wax moo ko ko mais gars yi naan jël na de milliards je ne sais si c'est vrai mais Macky moo xam mu tax mu jàpp ko peut-être peut-être peut mi la jël mais alhamdulilah ñu si sant ñu si kontaan rek kontaan kontaan si yàlla rek sant yàlla rek am na lii moom yàgg na ko ñaan sëriñ wax nañ ne ko yaa ndaa feebar di ma grâce be dafa yombal yàlla dafa jot yàlla ba yàlla def yàlla def ko man daal loolu laa ma sant yàlla yàlla ma sant yàlla sant yàlla laa def jot naa mu def ko moom man tam Macky aussi waaw yërëm rek njit ngay yërëm ku jiite di ngay yërëm waaw Macky macha allah man de moom laa faral mag moom laa wooteel Macky laa wooteel sama suñu waa xam nañ ko sax moom laa wooteel moo def moo defar sama dëkk man moo defar sama dëkk Sédhiou waaw Senghor def ko Abdoulaye def ko ab jëf moo ko def moo defar tali yi moom sax gars na ma xam ne su ma see moom la wax wax dëgg yàlla moom Macky laa faral mais dafa lii ngir da nga yërëm waaw def na lu nice quoi macha allah ñu sant sant yàlla rek waaw dafa jot muy def ko a ah, yàlla moo yàlla moo ko moo ko moo ko décidé mu bàyyi ko yàlla mooy décision mujj yàlla yàlla ko yore dëgg la bon sant yàlla ah merci alors waa Thiès na ngeen def bàyyi nañ si yam baax Mor Fall laa tudd laa laa dëkk. wooy waa Khalifa saal moom war nañ ko mën a bàyyi quoi ndax fii moom réewu jullit la dañoo war a jàppalante dañoo war a jàppalante waa dañoo war a jàppalante war nañ koo bàyyi moom war nañ koo jégal xam nga ah bàyyi nañ ko oui waaye loolu kay lu baax la loolu kay lu baax la Sénégal alhamdulilah rabbil alamin Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar oui loolu rafet la loolu lu rafet la lu ñu bàyyi Khalifa lu rafet la day gën a yokk jàmm Sénégal rek waaw day gën a yokk jàmm Sénégal alhamdulilah kontaan nañ bu baax nag si li ñu ko libéré. Ah, lépp sant la rek lépp sant la rek te mag ñi tamit xam naa ni jàpp nañ si lu tax ñu bàyyi ko ndax suñu inauguré Masaalikul Jinaan Ablaye Wade ak Macky Sall jiboo ñu tegaat si ñaari fan Khalifa Sall génn ab cant la rek ab cant la ak ab sant la tamit waaw ab sant la. moom daal sant rek nii moom bu koy doxee léegi Sénégal neex jàmm kon ne waa léegi gi nga sénégalais moom kenn moomu leen moom nit lépp loo munti def suñ la bëggee daan dañ lay daan suñu la bëggee voté dañ lay voté fu ñu toll nii ñëpp moom seen carte ku nekk la neex rek ngay voté te lu si xol yi mu ngi si xol kenn mënu koo génne si xol yi waaw fu ñu toll nii daal nañ saaku jàmm rek bu élection yi jotee ku am ndam ñu xam ne moom la yàlla may ku ñaax tamit xam ni yow moom la ko yàlla xañ. Thiès Info maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant man la Mariane Bey madame Fall <laughs> waaw. léegi ah, kontaan rek kontaan bu baax kontaan nañ ci torop niñ ko bàyyee nii xam nga lépp rek day wone ni sëriñ Touba amul moroom parce que ci dem lañ inauguré fële mosquée bi Massalikul Jinaan Ablaye Wade Macky sàll juboo après Khalifa Sall ñu libéré ko kon dañuy sant yàlla rek dañuy sant bu baax. yaakaaroo bàyyi lu jot yomb lu jot yomb rekk xëy na fii yàlla fii la ko tuddee woon pour ñu pour mu génn lii day wone ne rek Serigne Touba amul moroom. te wane ni aussi tamit ngi def jéego bu mag. comme te waaw waaw président ak Sall. kañ moom macha allah man moom dama par personnel moom laa àndal wax fa dëgg yàlla parce que moom def na suñ maam Abdoulaye Wade def na fi jullit moom def na affaire doom waaw te kenn du sëñ Mountakha Mbacké lépp moom la lépp Serigne Touba la waaw Macky Sall moom macha allah man moom maa ngi si moom tey ba ëllëg. waaw yàlla na ko yàlla may mu yeggale mandaam si jaam Sénégal gën jëm ci kanam. Euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Ismaïla Cissokho bon jóge woon fi Medina Fall demoon ci benn réunion bu ma demoon benn stage pour affaire kunf bon si la passé par la ci may expliqué journaliste bi li ma wax ci affaire Khalifa Sall bon mu nekk loo xam ne daal lu rafet la tudd lu waroon mën a am bu yàgg la parce que tamit Khalifa Sall nekk na nit koo xam ne vraiment ku jëriñ Dakar vraiment ku fa def lu bari la kon tey tëj bi ñu ko tey tëjoon nii tamit bon mën naa ne du si coobareem mais nag après politique moom moo doy war moo yéeme yàlla rek moo xam li ñu naan allahu alam rek moo xam lu rafet la daal parce que tamit maanaam tabax li ñu naan euh, juma dafa am solo ci dëkk surtout dañuy wootee ne fii diine islam moo fi ne kon tey li ñuy wax ne bëri na tarixa ñu ne tarixa murit tijaan laayeen mais lépp ci yàlla la jëm kon tey lii nii bu amee tey yàlla moo ko tuddee woon noonu yàlla moo tuddoon nii ñoom dinañ fa tase ba tey ñu juboo tey mu de am de mu ne am nekk benn jàngat bu am solo ci man daal vraiment mu nekk loo xam ne daal lu ñu rafetlu la ak tamit génn xalifa Sall bi tamit xam naa ne lu yàlla dogaloon la te ci app bi la am moo tax mu am. mooy dafa tombeek tey ci li bis bi la ci ci boobu la waroon amee war a am la dafa war a jot ci jot ci am ci temps bi mu am man ci man sama jàngatu man loolu laa gisee daal. bon ma ciy xalaat bon ah nañu am ci njort bu rafet rek ñu ci am njort bu rafet rek parce que tamit bon je pense affaire politique la rek parce que ñoom xamante nañ seen biir te ñoom ñoo yàgg nekk te maanaam daal seen i bagage kenn xamul daal yar rek moo xam daal man daal salaam laa ci mën a xam. ah man euh, Ba Moussa laa tudd quoi yu sincère yëpp bëggoon nañu vraiment euh, souhaité woon nañu mu génn bu yàgg quoi pour tout Sénégalais sincère quoi. ou tout homme simple rek sax mënoon na souhaiter vraiment mu génn quoi ñaan nañ ko ñaan nañ ko ñaan ko mais mooy lu ma la wax lu jot rek yomb peut-être c'était le c'était c'était le moment venu quoi ñu mu libéré ko et puis et puis tamit sa son condamnation tamit vraiment euh, tout tout était enregistré quoi et vraiment mécanisé quoi si c'est politiciennement quoi ça parce que man je ne peux pas voir un jeune bon, je peux dire un jeune bon, presque à la fleur de l'âge, quoi, qui n'a encore rien vécu, un, un jeune intellectuel, hein, ambitieux, hein. Sénégalais yëpp jàmm lañ xam quoi fii jàmm moo fi yàgg am jàmm la fi mag yi ñaan tamit te loolu moo moo fi wéy ko moo fi wéy quoi oui. président c'est un président rek caa bi dafa war a da du ko du ko du ko dafa nekk pour pour pour pour la sécurité des des gens. xam nga et puis tamit pour pour le développement l' éducation bon y' a beaucoup de choses Sénégal yu doon def c' est que man je pense que Sénégal toujours on s'attarde toujours à des cas yi nga xam ne vraiment mënoon na ko dépasser. parce que y' a beaucoup de choses à faire sa politicien bu jaar da naan je vais faire cela je vais faire cela mais après mooy loolu quoi. nit ki da ngay am ñeneen sa réew quoi mais yow bul géem a ñëw pour wut ñeneen ñeneen sa réew quoi comprendre nga da ngay seet toujours noo avancer sa réew mais pas yow ni nga noo avan noo noo noo mën a. profité pour pour pour pour ton profit personnel c'est ça quoi nit ku nekk ah, day am ambition pour pour pour kii am caabi. c'est donc et xam na ne Macky Sall ñoom ñëpp si si Wade doon jaar quoi te pouvoir yu ñu am yëpp Wade moo leen ko ñu ko jox kon Wade soxorul quoi dafa dafa leen umu ufoon nag comme une famille nii parce que yàlla jox na expérience bi jàng na tamit am na expérience bi comme naan mais c'est comme ça politique des fois y a des Euh, son expérience euh, lui donne encore beaucoup de force quoi. Beaucoup de force quoi. Comprendre, à ne pas déraper quoi. C'est ça, ça quoi que, que ma, ma vision pour moi.